salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen mbokkum taalibe Modou Wade Diagne mooy wax ak yéen eh, di jànge daara ji daara ji ñuy wax daara ji ba Serigne Ka alquran ca Touba Madiana bokkoon bokkoon ci concours yaatal mbindum alquran muy lu am solo ñaan yàlla saa borom defal ci ndam ndam lu rëy rëy lu kara njort. salaamaaleykum ñu ngi ziar mbokk yëpp man la Mouhamed Seck jàng daara si Habibu bokkoon ci concours mi nu yaata alxuraan di ñaar la dis mi ñëpp am jàmm ñaar ñu am ndam. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu man la Basiru Sey jàngee daare Cheikh Habibullahi Mbacke nekk fii ci daare Soxna Mariama Mbacke mu sëriñ Soxna bu di fa jàngale alxuraanul karim dëkk Touba Darou Minane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 bokkoon ci concours yaatal mbindum alquraanul karim di ñaan yàlla ma bokk ci ñi xam ne ñooy jiitu asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyu bu baax di ziyaara baax man la Cheikh naa ñang Tuubaa ñenne muassas daara muassasatul aafiya bokkoon ci concours yaatal mbindum alquraan mi di ñaan la dis mais ma incha allah taala ñu gañe te aussi waa 3 koy def ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax bokk jullit yëpp ak ñu ngi tudd Baye Serigne Fall dëkk Touba Darou Khoudoss jàngee ci daaray Serigne Mouhamadul Amin Gaye Jëmmooy. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. man maa ngi tudd Cheikh Dieng bokk ci concours bii di c ah, maa ngi jànge Touba Madiana daaray Baye Serigne Gaye di ñaan yàlla mu may ma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 di ñaan nag mbokk jullit yëpp ñi ñaanal ñi yàlla may ñu si ndam ci daraje Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa alihi wa di nuyu yéen ñëpp di bu baax a baax a baax bi wax dëgg yàlla sant naa ko baax a baax a baax man maag maa ngi tudd Modou Diagne jàng daara soxna bu kii waaw Mariana man la Mouhamed Moustapha Ndiaye ibnu Serigne Seck fa Serigne Ndiaye xéewal jàngee alquranul Masar Diop daara sëñ Balla Diop àggale sama alxuraan daara sëñ Abdou Latif Dieng njaareem bokk jullit li ñu ngi leen di siyaare bu baax baax man la Baye Dame Ndiaye dëkk Touba ci Bëgg Bamba euh, jàngi alxuraan ci daari sëriñ Habibu Mbakke euh, wëlbatiku di yëngu ci jàng ak jàngale fii ci Touba Sam Boqantul Mubaraka ñu ñaan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 Euh, le 10 mai incha allahu taala. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk mi man la Seynabou Cissé ay dëkk Touba Darou Minam jàngee jànnatul ma daara Sëñ ma leen ñaanal ngeen ñaanal ma ma jël ko premier incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi tudd Soxna Mbacke jàngee daara Sëñ Amdi Moustapha Diop bokkoon ci concours bi yaatal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 asalaamaaleykum wa rahmatullah man la soxna Aïcha maa ngi dëkk Jurbel di jàngee daara Sëriñ Issa maa ma bokk ci concours yaatal mbindum alquran maa ngi ñaan ñëpp ñu ñaanal ma ma jël premier incha allah